waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen euh, euh, baalu aax di leen ñaanal jàmm di rafetlu li xew fi ndax jàmm moo fi am dugg nañ ci bisimilah rahmaani rahim voté génn si alhamdulilah rabil alamin kon dañuy ñaan yàlla na continuer noonu ci jàmm ndax jàmm si lépp xaj. te fii tëngeej la te ñun ñëpp boo bokk tëngeej kon yàlla na fi yàlla def jàmm ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbil alamin benn ne ñu ngi toog seen kër ko waaw xanaa di leen wax ne rek nañ jóg ñëw dugg Patese parce que xam ne àdduna euh, euh, pour nga pour pour nga mën a euh, def dara si sa dëkk il faut ngay tànn sa njiitu dëkk kay jiite sa dëkk da nga war a tànnal sa bopp. da nga war a tànnal sa bopp mais boo toogee sa kër boo toogee sa kër defoo defoo dara nga ne voté jiw ma bu boobaa bu dëkk bi yàqoo yow bokk nga si ñi ko yàq mais da war a tànnal sa bopp sa jiitu dëkk ki nga xamante ne moom mooy gérer sa gox loolu mooy yoon loolu laa leen di wax na ñu ñëw voté se xam te xam ne li si des yëpp si loxo yi yàlla la nekk yàlla na yàlla may ndam comprendre nga vote bi yàlla si yàlla def jàmm si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam